Euh, jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen chaîne préférée di jox seen wàccuwaay tey nag ñu am mbégte daal di toog ak ki nga xamante ne nii euh, moom moo di monsieur Mamadou Ndiaye nekk euh, président du mouvement pour la défense des institutions de la République suma juumul noonu la ñu fa yéene rek sekk ak moom waxtaan lépp lu ñel rek wàllu actualité fii ci réewum Sénégal laata loolu monsieur Ndiaye ginnaaw bañ la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoon teg internet yi les staan ci sans limite. Mariama maa ngi lay nuyu di di profito euh, si sa jëmm di nuyu képp koo xam ne mi ngi liggéey si seen sit bi tudd euh, sans limite et puis di leen féliciter di wax ne waa mi yëpp kontaan nañ si yéen ndax toutes les sources socio-culturelles ñu ngi gis seen bopp si seen si seen si seen liggéey voilà ci beaucoup monsieur Ndiaye euh, mu mel ni rek euh, ci euh, temps wu émeute yi nga xamante ne ni moom moo fi amoon mujjee woon nga cee am benn frère boo xamante ne ni malheureusement daf cee ñàkk bakkanam mu doonoon nag loo xamante ne ni méttud li li nañu ko waaye itam nga génnoon ci def ay révélation yoo xamante ne dafa xaw a yéeme ci ki nga xamante ne ni moom moo di Ousmane Sonko ndax ci tënk mën nga ñëwaatal ci propos yooyu. Euh, di commencé di masawu réew mi si li fi jàll di masawu suñu bopp di masawu réew mi yëpp képp kuy sénégalais yaakaar naa ne dund nga ko euh, si ni mu gën a méttee euh, di ñaan yàlla lu mel noonu bañ a amati si réew mi voilà li nga xam ne dund nañ ko nag xam nga ñàkk koo xamante ne bii dalaa jege muy sa cousin muy sa frère muy sa sœur ak lu mu doon si yow dafay nekk lu metti donc euh, ñi ngi ñaan yàlla ñoom fu ñu tëdd yàlla xaril na xaril na àjjana donc di ñaan yàlla daal loolu bañ fi amatee waaye nag euh, di wax ne aussi lépp lu am dafa am sabab voilà su fekkoon te Ousmane Sonko bañ ko convoqué nekk na un républicain dem wuyu ji justice yaakaaroon naa ne lii yëpp du am su fekkente ne bii lii yëpp am na c'est parce que il a manqué de de de sang-froid il a manqué de culture étatique la manqué de culture démocratique. C'est ça qui nous a poussés et c'est ça qui a euh, créé cette situation-là d'émeute euh, qui, qui, qui n'honore Sénégal. Qui n'honore pas Sonko a plongé ce pays-là si benn honte bi nga xamante ne bii euh, vraiment euh, lu yéeme la. si c'était même dans d'autres pays tels que les États-Unis wala feneen les pays scandinaves waratul sax taxaw naan dafa bëgg a nekk. conseil municipal astama candidat à l'élection présidentielle 2024. ci sa lecture par rapport ak émeute yi nga xamante ne moom moo am suma juumul Ousmane Sonko euh, jug na daal di dem ci famille victime yi daal di leen nemmeeku euh, ba mu ñëwee seen kër lan ngeen lan ngeen tënk. bon euh, bëggatuma wax ci phase boobu loolu vraiment c'est derrière nous et que nga xam ne mooy sunu kanam loolu laa bëgg ñu waxtaan ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdd. fa ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu fi ñu jugee bi mbir yooyu amee nag nit ñi ñàkk seen bakkan euh, ñu gis ay blessés yu bëri gis ay saccage yu bëri ñu gis benn incivisme ñu gis benn désobéissance civile boo xamante ni bii benn nit rek moom moo sooke loolu lépp c'est ça qui nous a à créer ce mouvement là bu ñu bëgg a présenter sénégalais yi à créer ce mouvement bi nga xamante ni dafa jug pour défendre les institutions de la République parce que dañu gis ni à chaque fois que monsieur Ousmane Sonko sort parce que man j'ai du respect pour lui parce que c'est c'est une c'est une personne humaine c'est pourquoi je dis monsieur bien vrai que lui il respecte personne voilà mais à chaque fois que mu def benn sortie dafay dafay passer totalement à côté c'est quelqu'un qui mérite même pas d'être chef de quartier parce que munoo ne suñu ma convoqué si moment électoral du ma dem wuy ji damay bañ loolu lu yéeme la soxna si loolu bi ma ko déggee j'étais scandalisé loolu le ordinaire même mënu ko sax war ko sax xalaat surtout nag quelqu'un bi nga xamante ni da nga ne sénégalais nañ la quinze pour cent de leur de leur de vote kooku dafa war a. raison dans la mesure où koo xamante ni dafa war a battre campagne quand même pour élection présidentielle peut-être 2024 ñu lay woo ngay jaabante justice est-ce que loolu tamit euh, du rekk une façon de lui mettre euh, les bâtons dans les roues. vous savez madame nga baal ma ci exemple bi may joxe dana nekk exemple boo xamante ni bii peut-être danaa tudd ay tur te loolu du sago te loolu baaxul mais damay joxe juste un exemple gis nga le droit pourquoi le droit. c'est-à-dire la loi pourquoi loi nekk si kaw ñëpp gis nga sa kër yaa ko moom parce que y la loi sa oto yaa moom parce que y a loi sa jabar say doom yaa ngi leen moom parce que y a la loi ma joxe juste benn exemple sama mbokkum daara Serigne Mboup directeur général bu CCBM xam naa ne tu ma ci mere moom mi moom su fekkoon ne loi amul su fekkoon ne justice amul mais sama mbokk Parcelles Assainies bële Modou Lo mooy ñëw ne ko suba pour xëy CCBM kon defe naa tu xëy CCBM de ndax physiquement su Modou Lo taxawee Serigne boobu du taxaw CCBM mais pourquoi Serigne boob kenn mënul ñëw taxaw ne ko pour xëy CCBM parce que yàlla lu wax parce que soo ko defee yoon dal sa kaw donc il faut que Ousmane ko mu xam ne les contingences politiques là être candidat à l'élection présidentielle être candidat à à à une mairie loi moo féete kaw lépp su le juge wooyee tu sais madame il faut que Sonko xam benn affaire que le juge il a comme principe de directeur que l'autorité de la loi que c'est l'autorité de la loi moo ko féete kaw donc loi su la soxlaa rek même su fekkonte ne bii euh, da nga war a nekk candidat suba da nga war a fa teg lépp daal di dem wuy ji justice c'est ça un républicain c'est ça être républicain voilà mais lui il n'est pas républicain. si xamante moom lañ ko soxlawee pour déglu ko ci wàllu yoon jamono ji moom lan la wax yàkkamti na dem procès ki nga xamante ne itam moom la sekkal mbir mi di Adji Sarr yàkkamti na dem procès qu'est-ce qui empêche la justice jamono ji ñu woo leen ñoom ñaar. xam nga Ousmane Sonko c'est un homme de théâtre il faut que nit ñi xam loolu c'est un manipulateur c'est un manipulateur parce que xam na xam nga mbir su nekkee ci yoon. Aucun citoyen n'a le droit de commenter. Aucun citoyen n'a le droit de commenter parce que dafa nekk pendant euh, pendant la justice un dossier qui est entre les mains d'un juge d'instruction kenn waratu si wax même moom ce qu'il ce qu'il a fait il devait pas le dire il devait pas le faire et que dama koy conseiller mu bañati ko def la prochaine fois parce que su ko defee la prochaine fois le juge peut casser le le le le, le contrôle ko may placer ko sous mandat de dépôt ça ça faire quoi danañ ne dañ koy jaay doole fekk ne c'est ça le droit su si waxee le juge a la possibilité tout de suite de casser le contrôle judiciaire et de le placer sous mandat de dépôt et il ira en prison on ne lui souhaite cela donc je je lui je lui je lui donne un conseil de ne plus parler de ce dossier c'est un dossier pendant la justice entre les mains d'un juge d'instruction il n'a qu'à attendre que le juge le convoque et le confronte à Adji et puis ñu xool la moo si mujjee seul le juge au Sénégal actuellement aucune personne ne peut vous dire si Sonko sera jugé ou pas c'est seul le juge qui peut dire que li ma gis nii doy na pour ma yóbbu ko devant un tribunal ou bien li ma gis nii doyuma lii su dara dama koy dama koy dama koy décerner un non-lieu donc fi mu nekk nii c'est seul le juge au Sénégal une seule personne qui peut dire Sonko def na wala deful voilà donc ça il faut que monsieur Ousmane Sonko se met à la disposition de la justice et que su fekkente moom li muy wax dëgg la si moom que Pastef dafa am un projet politique de société même s'il est même s'il est reconnu coupable même si même si il fait l'objet d'une condamnation mais le Pastef c'est un parti politique quelqu'un d'autre peut prendre le, le, le relais et et suivre le projet et réaliser le projet donc pourquoi une obsession obsession à prendre le pouvoir, obsession à être candidat, c'est pas que c'est un drogué de pouvoir, Ousmane Sonko. C'est un drogué de pouvoir. C'est un terroriste aussi. Il faut le savoir. Et je pèse bien mes mots. Vous savez pourquoi c'est un, c'est un terroriste. Il fait ce qu'on appelle une incitation à la rébellion. Il n'a pas le droit de dire su ma justice convoqué damay bañ. c'est honteux de sa part su ma justice convoqué moment électoral damay bañ du ma dem. c'est honteux de sa c'est une sortie maladroite et je pense que ces conseils doivent lui servir de quelque chose. Très souvent on reproche à la justice sénégalaise d'être instrumentalisée. Est-ce que ça c'est pas une raison euh, pour Sonko de dire que ni bu ko justice euh, convoquée du dem? Madame, nous avons la meilleure justice en Afrique. Nous avons les meilleurs juges en Afrique. Notre justice elle est honorable. Vous savez pour être magistrat, il faut faire 13 ans de l'école primaire à la classe de terminale. Il faut faire 4 ans à l'université, faire 2 ans à l'école nationale d'administration, euh, euh, euh, au centre de formation judiciaire. Et que nos magistrats sont d'une probité intellectuelle exceptionnelle. Madame, ce qui me plaît, c'est le magistrat sénégalais. soo à moom kër il a même peur que nga xam ne kii magistrat ñoom dañu dañuy nëbbatu sax ndeysaan bëgguñu sax bëgguñu sax ko xam ne ñi ay magistrat lañ tellement que ils sont honorables nos magistrats. Je suis fier d'eux. C'est des grands messieurs. La magistrature est animée par des hommes et des femmes d'une d'une d'une qualité exceptionnelle. fii rek ngay gis magistrat romb la nga nga wax ko lu la neex il te pardonne dans la rue mais allez-y dans certains pays en Afrique nous qui avons l'habitude de voyager un peu boo demee si yenn dëkk yi vous verrez que justice sénégalaise amul moroom et que Sonko aussi doit savoir que la police sénégalaise la gendarmerie sénégalaise nos force de défense et de sécurité ñooñu ñooy kenoo Afrique soo demee si système onusien Sénégal mooy premier réservoir en matière d' si ñi nga xam ne moom la àdduna bi yaakaar pour établir dans le monde no force de défense et de sécurité waxuma la Mali waxuma la leur présence en Guinée-Bissau waxuma leur présence en Gambie en Côte d'Ivoire au Soudan au Darfour partout mais suñu force de défense et de sécurité yi ñu ngi même au-delà au-delà de nos frontières. Au-delà de nos frontières, jusqu'en Asie, il nous faut honneur. Donc saper leur autorité, jeter du discrédit sur eux, jeter du discrédit sur la justice, c'est le métier de Ousmane Sonko. Et ça, ça ne même pas, parce qu'il est sénégalais. Il doit savoir une, une mooy que sur lancer appel au jeunes de sortir manifester, sur lancer appel euh, à nos étudiants de se, de se défendre. Mais doon ma neex trop doomam jiitu sénégalais yi dañu war a xam loolu sénégalais yi dañu war a wax à Sonko soo woteetee appel na sa doom jiitu mais j'étais sidéré de voir parmi tout ce qui s'est passé amuñu benn ku jege Ousmane Sonko wax ma la doomam de mais kenn koo ko jege si mbokkam rek koo xam ne blessé wu na astamaak génn àdduna c'est honteux mais su fekkee li muy wax gëm na ko su fekkee ne c'est un vrai patriote Thomas Sankara bi mu jëlee projet bi mu jël nii dafa teg ses propres enfants devant Thomas Sankara su doon marché ses propres enfants ñoo nekk devant mais Ousmane Sonko ses ses épouses se met devant cette sa terrasse pour pour jubiler et tuer et tuer les Sénégalais c'est un meurtrier c'est un criminel c'est à cause de lui que tous ses enfants sont morts président yu jot def yooyu yëpp gis nañ tamit seen i proches sur le terrain ñu mëne combat bi nga xamante ne moom lañ doon def pourquoi ñu jeter lépp euh, sur le le dos d'Ousmane Sonko là aussi est-ce que du benn genre euh, Euh, peut-être ni ngeen ko contrer wala boog ni ngeen faree ak euh, parti bi ngeen nekk moom moo tax ngeen ni waxe noonu. madame nous avons un je suis à la tête d'un mouvement républicain je je je rappelle je précise que je ne suis pas membre de l'APR je ne suis pas membre de PASTEF je suis membre d'aucun parti politique je suis un citoyen républicain et notre mouvement là que nous venons venons de créer après le Ramadan. danañ def ay sorties dañ def ay points de presse dañ def ay sorties tous les Sénégalais sauront qu'il y a des sommités dedans des professeurs d'université, des avocats, des médecins, c'est-à-dire toutes les couches socio-professionnelles du pays ñu ngi bokk ci mouvement bi ñu nar a taxawal parce que dañu war a yee réew mi dañu war a yee réew mi xamal leen que ne Ousmane Sonko c'est un danger c'est un danger public c'est un danger national et que kenn waratu ko may fu muy génnee di wax ndax saa bu waxee rek moom saa bu waxee rek bakkan bakkan mu daan tëdd et aussi ma koy ñaan benn affaire loolu nag moom dama koy ñaan mooy que ñun Sénégal quatre-vingt-dix pour cent des Sénégalais yi nga xam ne ay musulmans lañu cinq pour cent de catholiques yi ak cinq pour cent animistes yi ñun ñëpp à l'unanimité dañu am benn consensus mooy que suñu nit génnee àdduna saa boo yëkkatee kàddoom li nga siy teg mooy yàlla na ko yàlla yërëm moom wax naa wax a wax a wax a wax a wax ba yàlla indi ndogalam jaaree la ko si jëmm le juge Samba Sall ñi ngi ñaanal ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd. gënal ko fi mu jugee ay njabootam nag xam naa ne ñu yaru nañu ndax man sama baay su génnee àdduna ku toppaat si moom di wax ay wax yu ñaaw dinaa ko jëflante ak yow waaye moom dafa yar njabootam donc su Ousmane Sonko dafa war a xam ne juge Samba Sall daf ko war a bàyyi mu nelaw ah si jàmm le juge a donné tout ce qu'il pouvait pour rendre service au Sénégal durant trente ans il a été au service de la République il a été au service de la magistrature il a service du pays donc moom mënu ko salir. projet voix Sonko sur euh, euh, décès Samba Sall je pense que ni euh, moom interview bi nga xamante ni moom la jee def wax na ni wax na ci junj na ci tuuti daal di koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm mais sur ce coup lan nga lan ngay reprocher Sonko. xam nga Sonko sax moom mi ngi mettre en mal sax parmi les vingt cinq qui ont été moom wax na ne yaa monsieur Tell am na ku mu cité mais bëgguma cité kooku am na ku mu cité ne bi mu jàkkaarloog juge bi juge bi daf ko ne. on veut les gros bonnets mais il faut ñu jàppale ñun pour avoir nga loolu yéeme na un juge d'une dimension de Samba Sall doyen des juges d'instruction madame pour être doyen des juges d'instruction dafa am processus gis nekk doyen des juges d'instruction nekk président de la République moo ko gën yomb c'est parce que Ousmane Sonko ne connaît pas le droit il ignore le droit il a été qu'un simple fonctionnaire inspecteur des impôts il n'a jamais dirigé troisième on le lui concède <laughs> voilà il n'a jamais dirigé de sa vie il n'a jamais été directeur général il n'a jamais été ministre xamul naka la ñuy manager c'est pourquoi il est obnubilé par le pouvoir je sais que même en dormant la nuit rêve yëpp mooy nu muy nu muy nu muy jëlee le pouvoir Euh, justement monsieur Ndiaye en parlant de pouvoir et des fauteuils euh, présidentiels euh, mu mel ni rek coow lu bëri na ci élection présidentielle 2024 ñu bëri jàpp ne ki nga xamante ne moom moo di président Macky Sall am na droit à un troisième mandat am ñu ne déedéet lan mooy sa appréciation par rapport ak loolu. je vais vous rectifier un avec tout que je vous dois hein je vais vous rectifier un peu le Sénégal a adopté une nouvelle constitution. monsieur Macky président de la République élu en 2019 entame son premier mandat il est bon de le souligner monsieur Macky Sall entame son premier mandat par conséquent si lui Macky Sall là je dis Macky parce que quand vous êtes candidat à une élection présidentielle la qualité disparaît on parle plus de monsieur ou on parle de président on la personne cest on dit le candidat Macky Sall peut et bien se présenter en 2024 février 2024 il peut bel et bien briguer un second mandat et là ça sera son second mandat s'il est réélu en 2024 hypothèse d'école si Macky Sall est en 2024 ça sera son dernier mandat c'est ce que la Constitution. Mais vous savez, au Sénégal, il y des professeurs d'université, il y a des avocats qui sont complices de Ousmane Sonko, qui sont complices d'ennemis du Sénégal. On peut le dire comme ça. Vous savez, notre, notre, notre pays, puisque c'est une dame très belle, très courtisée sur le plan mondial, forcément, il faut que Mohamed ait ennemis. Et que ces ennemis-là sont, sont Sonko. Donc c'est eux qui alimentent l'opinion, qui disent que Macky Sall ne peut pas se présenter. Mais Macky peut bel et bien se présenter. en troisième mandat wax nga sànq ni euh, juriste yi ci boppam ku ci nekk mu ngi am hypothèse am par rapport ak légitimité Macky Sall pour euh, euh, élection présidentielle 2024 mais ce qui pose problème mooy que ni pourquoi les juristes ne sont pas d'accord là-dessus cela revient à dire que ni est-ce qu'on n'est pas en de de faire ce que vous vous reprochez à Sonko cest diir dire que ni respecté wul xëy na la justice est-ce que cela ne revient pas à dire que ni euh, jamono ji ce que les juristes sont en train de fair moom moo di instrumentaliser justice pour ñi nga xamante ni nii bëgg nañ am troisième mandat Macky Sall di jël euh, justice bi di leen di ko mettre à leur faveur est-ce que loolu tamit du beneen problème boo xamante ni nii war nañ ko leeral. non madame ñun instrumentaliser wuñu justice. soo xoolee même le chef de l'État am na lu ma neex si position bu mu jël nee na waa këram bu kenn tudd affaire u mandat na nit ñi liggéey et là c'est salutable c'est la décision qu'il devait prendre c'est la décision la plus sage xam nga madame dans un état de droit seule l'autorité qui incarne la justice moom moo war a wax ki war a nekk candidat ak ki waru nekk candidat xam nga Ousmane Sonko dafa xamul droit rek il ignore le droit il ignore. constitution bi xam nga mu ngi fii wax na lu leer je pense mais pourquoi euh, nanguwoo leen d' ci euh, légitimité président Macky Sall troisième mandat ñii di jàpp bool bii naan mën na nekk ñeneen ñi mun ta nekk alors que benn euh, yoon lañu am benn constitution la am là aussi duñ ko régler une bonne fois pour toutes avant 2024 je pense que c' est bien possible. madame nous sommes dans une république le Sénégal a des institutions la seule institution compétente. de dire qui peut être candidat ou qui peut ne pas être candidat, c'est le Conseil constitutionnel. Il faut que nous soyons des républicains. Il faut que nous soyons des démocrates. Sinon, c'est l'anarchie. Et c'est pas bon pour, pour nous, pour nous Sénégalais. Il faut que nous faisions confiance à la justice. Moi, je je suis un homme qui fait confiance à sa justice. J'aimerais que les Sénégalais ñu bàyyi cette question la être vidée par le Conseil constitutionnel maintenant je ne suis pas à la place de monsieur Macky Sall en 2024 s'il veut être candidat ou s'il veut ne pas être candidat c'est la décision l'incombe à lui mais il faut que sénégalais yëpp xam ne conseil constitutionnel kese moom mun ne kii mooy candidat kii nekkul candidat entendant le peuple dit non en troisième mandat loolu aussi tamit il faut ñu wax ko. madame je vous rappelle que monsieur Macky est en train de dérouler son premier mandat parce que moi je te parle de droit je te parle de principe de droit je parle pas de théâtre politique quelque chose comme ça moi je te parle de pur droit le Sénégal a une constitution et monsieur Macky Sall déroule son premier mandat sous le signe de la nouvelle constitution Macky Sall est en train de dérouler son premier mandat en 2024 s'il présente sa candidature s'il est réélu ça sera son second mandat je dis bien second mandat ça veut dire que ça sera le dernier mandat de le peuple se soumet au droit toujours c'est l'autorité de la loi qui est au-dessus du peuple la loi est au-dessus du peuple le peuple n'est pas au-dessus de la loi pourtant on est dans une démocratie où on dit que ne euh, la souveraineté appartient au peuple donc ça aussi c'est un autre <laughs> problème boo xamante ne nii xëy na indi ci ay leer dina wax. la souveraineté appartient au peuple mais c'est la loi qui réglemente les conditions dans lesquelles les conditions dans lesquelles le géopolitique se fait si si le peuple si le peuple euh, par sa diversité euh, bon opte pour une chose ça peut être maladroit c'est pourquoi on, on, on pour que ces institutions-là puissent rendre le droit. Le droit constitutionnel, les magistrats-là du Conseil constitutionnel qui ont fait 30 ans de carrière, 35 ans, 40 ans de carrière, qui connaissent la loi constitutionnelle, c'est Mais ce pas des professeurs ou des avocats. J'ai beaucoup de respect mais ils sont limités sur matière-là. Ces avocats-là n'ont aucune connaissance du beaucoup monsieur Ndiaye yaakaar naa ne waxtaan wi am na solo euh, ci tënk rek nga waxal ñu euh, lan moo sabab ngeen taxawal euh, seen mouvement bi laata rek nga joxe say kàddu yu mujj. mouvement bi nag li ko li sabab ñu taxawal ko dañu gis ne réew mi fi mu toll nii suñu demee ba gis ay étudiants si émeutes yi passé étudiants université Cheikh Anta Diop bi ñuy jeter pierre jël ay xeer di sànni ay policiers c'était scandaleux Moi, quand j'ai vu cette chaîne-là la télé, j'étais sidéré. J'avais... aussi des policiers qui tiraient sur des civils, là aussi. kenn ñamewu cee wax mais il faut tamit ñu wax ci. la police n'a jamais tiré sur sur des civils la police sénégalaise elle est républicaine vous savez euh, madame vous ignorez la capacité de réaction de notre de police gis nga police du Sénégal xarañam si par rapport ak ak ak ak son peuple non police su Sénégal wala gendarmerie Sénégal wala armée Sénégal xam nga foo ko doon nattee kenn ñaanu ko yàlla. maa bëggoon rek benn puissance jugee fële wala beneen pays étranger jugee fële bëgg a songu Sénégal foofu ngay xam armée sénégalaise wala la gendarmerie sénégalaise wala la police sénégalaise elles sont elles sont d'un professionnalisme exceptionnel c'est les meilleurs en Afrique c'est les meilleurs en Afrique. on doit leur décerner un satisfecit on doit leur décerner c'est-à-dire euh, euh, un remerciement je ne trouve même pas les mots pour leur remercier parce que si c'était pas leur professionnalisme le bilan allait être beaucoup plus lourd mais aucun policier n'a sur aucun Sénégalais je je certifie encore aucun policier n'a tiré sur aucun Sénégalais aucun gendarme n'a tiré sur aucun Sénégalais aucun militaire n'a tiré sur aucun Sénégalais notre police elle est républicaine notre gendarmerie elle est républicaine notre armée elle est républicaine je termine par dire que l'unique responsable de tout ce qui s'est passé c'est encore Ousmane Sonko et les Sénégalais doivent savoir que c'est un terroriste et c'est un drogué de pouvoir voilà. beaucoup euh, monsieur Ndiaye euh, nekk euh, président du mouvement de la défense des institutions de la république waxtaan wi am na solo di leen jaajëfal itam mbokk internet yi di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.